asalaamaaleykum wa mbokki internet yi maa ngi nuyu mbokki fi rawatina commune jas gépp waaye tamit maa ngi nuyu waa Sénégal wërngal këpp tey ñu ngi am mbégte ak contentement fasciné jàkkarloog waykatu way taskatu xibaar yi fekk fekk baax fi ci diwaanu jas di leen remercier bu baax a baax ci li ñu war a waxtaanee ak yéen mu jëm ci li nga xamante ne nii bés bu màgg bés bu rëy bu ñu jàpp ngir mën cee sargal ki nga xamante ne nii mooy sunu wëlëree sunu naataango sunu xarit sunu kilifa di monsieur le maire Cheikh Tidiane Diouf sargal boobu dañu ko jàpp. naka fukki fan nag ñett ci weeru mais bi ñu dëgmal euh, muy samedi bi ñu dëgmal muy le 13 mais incha allah euh, ñu fas yéene ci sargal ki nga xamante ne ni mooy monsieur le maire Cheikh Tidiane ah ñan ñoo koy sargal ak lan moo war a tax ñu war koy mën a sargal euh, ànd nañ ci ki nga xamante ne ni mooy Aïda Seck nga xam ne àndandooru Cheikh Tidiane Diouf la ci parti socialiste ànd bu yàgg booba léegi tàyyiwul et eh, sonnul mu ngi ci ginnaawam ñu ànd ci tamit ak ki nga xamante ne ni mooy Alioune Seck nga xam ne eh, dafa bokk ci mouvement bi ñuy wax réveil mouvement boobee tamit fekk baax fii ca fii ci diwaanu Toglu ak ki nga xamante ne ni mooy astu CTD moom boppam la tuddee sax astu CTD ndax Euh, cofeel bi mu am ci monsieur le maire Cheikh Tidiane depuis ba mu gënee nekk tout tànk ba nëgën nii euh, ak ñi nga xamante ne ñoo ànd ak vraiment euh, ki jiite waa Gazelle maanaam jigéen ñi xale jigéen ñi ñoo ñoo ñëpp fas yéene lëkkaloo sargal ki nga xamante ne ni mooy monsieur le maire Cheikh Tidiane juuf ndax ku ci nekk am na lu war a mën a tax ba am yéene sargal kii di monsieur le maire Cheikh Tidiane Diouf ki ci ku ci nekk ci baat bu gàtt rek dina wax li tax ñu fas ko yéene euh, sargal sargal boobu nag bi ñu ko jàppee ba noppi euh, ñu waxtaan ci sunu biir euh, ñu jiite ma ci muy coordinateur bi ah, yàlla dogal ñu ne faw ñu amal ko bàyyi waaye tamit bu ñu ko amalee bàyyi fow ñu amal ko ndey bi ñu to bi ñu ci toogee waxtaanee monsieur le maire Cheikh Tidiane effectivement mu war a delloo njukkal ki nga xamante ne ni xaritam la wóllëreem la euh, kilifam la aussi ci politique bi ci parti socialiste kooku tamit doon ko jàppale jàppale ci lu bari ci bi nga xamante ne nekkoon na fi maire mooy monsieur le ministre euh, euh, Serigne Mbaye Thiam muy ministre du l'eau et de l'assainissement yàlla dogal bi nga xamante ne nii loolu aussi Serigne Mbaye Thiam jot na ci mu kontaan ci lool rafetlu ko ah ànd ci fas yéene ànd ak ñiy sargal monsieur le maire ñëpp sargallandoo kii nga xamante ne mooy monsieur le maire. parce que sax euh, xamal nañu ne moom ci boppam li ñu xam ci Cheikh xam na lu ko raw ci wàllu baax wàllu def bu baax wàllu aussi liggéey lu baax ci noonu nag la ñuy woowee waa Sénégal gépp rawatin nag waa tundu Kursaafi ak fii nga xamante ne la ñu fekk baax di jas yéen ñëpp bu keroogee bu kenn manqué ci li nga xamante ne nii mooy sargal bi sargal bi tamit ah bi ñu ci waxtaanee ñu war ko utal ndey ci ndeyale bi ah monsieur le maire xalaat aussi mu ne ah bu dee wàllu ndey day faw ma toppe deretu meen ci ki géem a fekk baax nga xam ne sama woy bu ju bu ju sama wër bu ju woy jur bu jigéen fa la jógee ma delloo leen li nga xamante ne ni mooy ndeyale bi donc mu boole ko mboolem jigéen di dëkkandoo di nijaay di baay nga fekk baax fële ci diwaanu ci ki monsieur le maire jëlaat bés bi ndeyale la ko mu nekk bés bu rëy bés la boo xamante ne nag fonk nañu ko trop ndax euh, xam nañu ne monsieur le maire Cheikh Tidiane Diouf mérito na li nga xamante ne nii mooy sargal te aussi Euh, du ñu xaar ba après ñuy soog a sargal ndax nit ki da ngay taxaw teew nga def lu ne wëng def lu leer def loo xamante ne àdduna bi yëpp gis nañ ko teg ci seeni bët ñu mën la cee jaajëfal donc bés bi loolu la su ko defee ma jox kàddu gi ki nga xamante ne ni mooy euh, euh, kii Adja Aïda Aïda Seck nga xam ne comme ni ma ko waxee rek ci àndam ak moom ci parti socialiste lafa fa monsieur le maire Mel xam na ko ñu déglu ko ci kàddu gu ndaw. salaamaaleykum waa mbokki Safen salaamaaleykum waa internet yi salaamaaleykum waa Sénégal yëpp ginnaaw bi ma nuyee ñëpp dalal ñëpp ma présenté wu maa ngi tudd Aïda Seck dëkk fii Toglu ci quartier bi ñuy wax mbir jam may wax en tant que membre avenir partie socialiste de la commune de Diass lu tax avenir partie socialiste de la commune de Diass ma nekk ci membre depuis bi ma nekkee tout tànk ba tey di ànd ak le maire Cheikh Tidiane xam ko ci partie socialiste màgg ci liggéeyam ci parti socialiste fii ci biir commune de Diass kenn nattatlewu ko bi ma ko xamee ba tey ci fidélité am ci engagement am ci développement commune Diass ci liy demal euh, commune bi kanam dafa mosa dox si loolu en tant que socialiste mën naa ne partie socialiste bu amee doole tey ci biir commune Diass c' est grâce à lui ba tax na bés bi ñu jagmal mooy le 13 mais incha allah ñu fas yéene ko ci sargal mu jël bés boobu tuddee ko wóllëreem nga xam ne démb la balaa tey avant muy nekk maire ba nu mu nekkee maire mooy le ministre de l' assainissement et muy Serigne bay Thiam mu delloo ko njukkal ci jàppale bu mu ko jàppale ba tey ji mu jël bés boobu tuddee ko ko muy sargalam bi le 13 fii ci commune Diass ay jeunes ay ay xale ay mag ay ndaw ay góor ay jigéen ñëpp dañu nekk ci biir mouvement avenir parti social sa commune de Diass ñu bokk xalaat ak kii ne associé di comme ni ko Mbaye Seck waxee sànq ak mouvement réveil fas yéene sargal le maire Cheikh Tidiane Diouf loolu moo wane ne sargal bi saafeen yëpp ñoo ko fas yéene sargal idée yi daje si waa avenir di si xalaat buñ ne avenir rek kon kenn desul ci biir commune Diass fas yéene sargal le maire Cheikh Tidiane Diouf boobu muy le 13 lu tax ñu war ko sargal avant muy nekk maire ba mënu mu nekkee maire ànd ak population am desewu leen dara lépp lu ko war biir saafeen taxawu na ci population muy ci biir ci biti lu ñu yëg ak lu ñu yëgut yépp ba tey jii jeunesse boobu waxtaan seen biir taxaw ne kéem dañ koy sargal kon sargal boobu ñu ngi si woo ñëpp bàyyi ñu kenn góor jigéen mag ndaw surtout sama mbokk jigéen ñi ñu ngi leen siiwoo ci sargal seen doom jooju nga xam ne mooy le maire Cheikh Tidiane ñu ngi leen si yéen ñëpp samay mbokki enseignants yi les enseignants les enseignantes yi ñëpp ñu ngi leen si ci sargal boobu bés bi ñu tuddee ko Serigne Mbaye Thiam euh, ñu marraine ko jigéenu ci kii mbay Seck wax na ko sànq Toglu la juddoo fala yaroo moom le maire Cheikh Tidiane Diouf jël bésam yóbbu ko biir Toglu ci biir mbokkam yi wante nag delloo na ndey ji fa yaayam cosaanoo muy ciki waa ciki yëpp ñu ngi leen di woo ci bés boobu bu kenn des kon woo nañ saafeen yëpp jour boo xam ne kenn waru ko rate ndax képp koo xam ne yaa ngi ci kaw di ministre di député di euh, autorité politique di leader bàyyiwuñu kenn dinañ teew ci jour boobu kon buñ ñëwee nañ fi fekk waa saafeen yëpp di jaajëfal ñëpp di kontaan si ñu ngi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu internet yi nga xam ne ñooñu ñu di nuyu presse bi nga xam ne tey ñoo ñëw couvrir journée bi nga xam ne moom la ñuy def nii mu nekk euh, préparation wu sargal monsieur le maire Cheikh Tidiane Diouf maa ngi tudd Aliou Seck dëkk Toglu Kahan Baye nekk membre du mouvement Le Réveil de Toglu et mu nekk mouvement boo xam ne mu ngi yëngatu ci wàllu politique waaye mouvement boo xam ne ñu ngi liggéey ci biir Toglu ak li ko wër liggéey bi nag mu nekk liggéey bu am solo ñu gis ne jeunesse bu Toglu yëpp ñu ngi adhéré ci li nga xam ne mooy liggéey boobu noonu donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax euh, li waral journée bi nag mooy sargal bi nga xam ne Mbaye Seck annoncé na ko sànq mu nekk euh, sargal monsieur le maire Cheikh Tidiane Diouf ñu war ko def le 13 mai incha allah muy samedi bii di ñëw ñu ciy woo mbokki Toglu yëpp ñu xam ne seen doom moo xewle ñun ñoo fas yéene jóg sargal ki nga xam ne mooy le maire Cheikh Tidiane Diouf ndax li mu def ci euh, Safeen li mu def ci euh, commune bi li mu def ci département bi donc loolu ñu ngi ciy woo ñëpp ñu ngi ciy woo waa Tugal bu baax te ñu xam ne ñoom ñoo xewle mbay Seck wax na ko sànq tey li nga xam ne Cheikh Tidiane liggéey na ko ci commune Diass li nga xam ne liggéey na ko ci Tugal bi nga xam ne fa lañ dëkk jar na rek Tugal rek suñ ci yemoon ñu wutal ko bés bi nga xam ne moom lañ koy defal nii te rafet na trop nit ki soo koy jaajëfal mu fekkee tàmm nañ nag jaajëfal nit fekk mu dem waaye bii dañu fas yéene dund ak moom journée boobu mu nekk journée boo xam ne dañ koy partagé ak commune nu Diass yëpp waaye au niveau national donc loolu ñu ngi ciy woo ñëpp Toglu su ma waxee Toglu su ma campé woo Toglu c'est parce que ñun Toglu lañ dëkk monsieur le maire Toglu la soxee ko waaye moom yemalewul boppam Toglu dafa jàpp ne nitu askan bi la liggéeyam tàmbalee na ko Toglu waaye village boo dem biir Diass di fa fekk monsieur le maire ndax réalisation yu fa def acte yu mu fa def dem ci wàllu social mu nekk lu am solo donc tey jii nii kooku la ñu bëgg rendre hommage comme la ñu bëgg delloo njukkal ñu bi ñu ñëwee waxtaan ci ak moom euh, mu nangu ko tey dañuy rafetlu bu baax présence su astu ki nga xam ne xale bu ndaw la mu am initiative bi waaye lii bi muy am tamit fekk na entité yi ñu wax fi sànq mooy la réveil mooy avenir ñu doon xalaat ci lool donc ces ces mouvement la wala ñi nga xam ne ñoo bloc boobu noonu ñoo fas yéene def liggéey boobu waaye liggéey boobu nag du ñoom ñoo ko moom dama bëgg ñëpp xam ne Diass ñoo war a sargal te ñu ngi ciy woo ñëpp képp koo xam ne yaa ngi sentir na war nga delloo njukkal monsieur le maire Cheikh Tidiane Diouf ñu ngi lay woo ci bés bi. donc loolu moo nekkoon message bi du ñu guddal mënoon lañu wax beaucoup plus mais tey l' essentiel bi mooy loolu impliqué ci ñëpp ñëpp yëg ne. seen bés la du bésu réveil wala avenir kese mais Safen yëpp la presse donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di kontaan ci réponse bi ngeen def ci journée bi tey di kontaan bu baax a baax a baax ci euh, Cheikh Tidiane Diouf di ko jaajëfal bu baax a baax ñu ngi sant di gërëm ñëpp di remercier ñëpp di kontaan ci euh, seen taxawaay di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum mbokki Safen asalaamaaleykum mbokki commune de Diass man la Astou ñu may woowee astu CTD maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp maa ngi jégalu aussi toog ci biir ay mag di wax maa ngi maa ngi remercier tamit waa presse locale bi lu tax ma am initiative pour sargal maire Cheikh Tidiane ndaxte képp koo gis dafa am kilifa dama waxtaan ak samay nit ci kubit ñu wax ma lu may def ci laa jëlee sama temps ma ne xaaral ma dem ci ndey ma dem ba ma ñëw ba fii ci sama pap pour waxtaan ak moom mu ne ma man tamit dama am ay nit xaaral ma wax ak waa réveil ak waa avenir mais bés bi maa ngi ciy woo ñëpp samay xarit samay mbokk képp koo xamante ni am nga yëg-yëg ci CTD ñu ngi lay woo bàyyiwuñu kenn fii ci tund Safen asalaamaaleykum asalaamaaleykum waa Safen asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi nuyu internet yi fi teew maa ngi tudd Awa dëkk Gandoul jiite les gazelles mooy jeunesse su jigéen yi ànd ak monsieur le maire CTD. maa ngi leen di jaajëfal ci seen teewaay bi fii di leen woo ci suñu bës bi ñu amee le 13 incha allah 13 mais ñu koy defee fee tooglu terrain Jankalaar ñu ngi ciy woo ñëpp ñu ngi ciy woo waa Safen yëpp. maa ngi ciy woo tamit samay mbokku étudiant maa leen ciy woo bu baax a baax parce que bés bi xëy na CTD lañ bëgg a sargal mais je pense que bésu Safen yëpp la parce que Safen yëpp ameel kii nii di Cheikh Tidiane Diouf njukkal parce que li mu def fii ci Safen jiin na teraanga muy étudiant muy euh, professeur ñëpp la jiin teraanga kon donc maa ngi ciy gën a woo samay mbokku étudiant ngeen ñëw sargalee ñu seen leader sàggalee ñu seen ancien maire def fi li fi kenn deful macha kon donc ñu ngi leen ci woo bu baax a baax maa ngi ciy woo tamit waa Gandour parce que falaa dëkk te Cheikh Diouf tamit fii la dëkk ak ñun Toglu Gandour je pense que foofu noon benn la kon donc waa Toglu waa Gandour génn leen en masse parce que nit yi dañu leen di fekk si kon donc bu ñu leen fekk see fexe leen ba ngeen génn sargal seen bopp sargal seen nit sargal seen maire kon donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax waa di leen xaar ci bés bi. waa àdduna waa Sénégal may nuy nuyu ñëpp euh, man la Ousmane Atola en tant que Baye Fallou Cheikh Tidiane Diouf ñu bëri mënuñu fi wax tey jii ma toog ci jeetaay bi te duma ci wax bu ñuy sargal euh, monsieur le maire Cheikh Tidiane dama ci am kontaan ak lool. parce que booy ànd ak nit dafay am li tax ngay ànd ak moom xam naa ñu bëri dinañ ne waa ji dafa am jot lu ñuy wax ci Cheikh Tidiane Diouf wala mooy wax ci Cheikh Tidiane Diouf te yaakaar naa ne képp ku ñëw ci sargal ba dinga xam ne waa ji lii moo taxoon mu doon wax ci seex ti Tidiane Diouf sargal bi man dama ko jàppee ne man la ñuy sargal te li tax ma am courage ànd ak moom dafay déglu daf ñuy déglu daf ñuy déglu ñun ñi ànd ak moom daf ñuy déglu te su bëggee def dara daf ñuy laaj lan moo ci seen xalaat dëkk bi dama ko yor ñu jiite ma mais su bëggee dox man ak yéen ñun ñoo koy doxal mu nekk ku ñu doon déglu ñu am courage waxtaan ak moom ci benn at bu mu fi nekk ñu gis réalisation yu mu doon def yàlla def nag mu wàcc nekkatu fi li tax ñu gën a sawar ci sargal bi pour àdduna yëpp xam ne kii lu mu doon def lu baax la ñu bëri mën ci jàngat ñu am ci jàngat parce que nit kuy def lu baax boo koy encouragé day tax ba ku bëggul woon def lu baax sax dina ko encouragé dina tax dina tax mu am courage pour mu ñëw jàppale ko wala mu mun a droy ci kooku def lu baax ñun Cheikh Tidiane Diouf nag dafa liggéey liggéey bu rëy saafen mu nekk nit koo xamante ne ku oyof la te du ñu bàyyi ba mu dee ñu ne dañ koy sargal te ñu ngi koy sargal dinañ ko sargal euh, treize ñu ciy woo saafeen ñëpp saafeen ñëpp lañ ciy woo te amul exception ñëpp la woo képp ku dégg lii na nga jàpp ne sa yëfu bopp la ndaxte moom dafa nekkoon nit ko amoon yéene ci saafeen yëpp yàlla def mu yemale ko ci benn at yi te bu continuer woon saafen yépp ci gis seen bopp yàlla nag parfois da lay fakastal fekk yoon bu baax bi la lay wan mais ñu ngi ñaan yàlla nag man Ousmane de maa ngi ñaan yàlla yàlla tegaat ko ci bopp commune Diass bu yéenem ngeen gis ko ñëpp am ci kontante ak mbégte parce que gis naa yéene bu mu am maa ngi jégalu nag. maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp yëpp maa ngi tudd Yaay Anna Traoré madam Sow man fii laa dëkk Kandam Benteñe ñu dëkkal ak monsieur le maire bokk moom benn koñ naam dëgg la toglu la sokkeekoo waaye fii lañ dëkk ak moom ci kàndam dëkk moom dëkkin bu rafet macha allah lu am bokk koog ñun suñ koñ bi macha allah ndox moo tax mu yegsi fi courant lumière bi moo tax mu ñëw fi ragalatuñoo génn guddi yennootuñu ba sonn suñ moo tax nag ñu bëgg koo sargal le 13 di si woo mbokk saafeen yëpp di si woo waa Sénégal yëpp le 13 mais ñu koy sargal fee ca terrain tëblu ñu ngi leen ciy woo di ko jaar pour ñu ànd ñun ñëpp sargal ko jaajëfal ko ndax kat def na lu tax ñu war koo jaajëfal maa ngi waa kàndam yëpp maa ngi leen di woo ngeen génn en masse ñu ànd ànd ak sunu monsieur le maire gungi ko ca sargal ba sargal ko yàlla yóbbu ñu seeg jàmm ak salaam maa ngi voilà su ko defee mbokk yi euh, ma dellusiwaat ci kàddu gi euh, dina xaw a tuuti laal wolof kii euh, séeréer saafen pour aussi suñu mbokk yi nga xamante ne ñoo fekk baax fii ci diwaanu jas ñoom ñëpp ñu mën a am dégg ak topp ci li nga xamante ne moom la ñuy laaj ñëpp li ñuy soxla mooy donc fukki fan ak ñett ci weer wi ñu nekk nii di weeru mai yemook bésub gaaw di samdi Eh, ñu ngi woo ñëpp ci terrain jànkalaar bu toglu lu ñu fa xewle mooy sargal ki nga xamante ne ni mooy monsieur le maire Cheikh Tidiane Diouf ah, du góor du jigéen du mag du ndaw bàyyi ñu kenn tund saafen gépp waaye tamit ñu ngi woo waa Sénégal gépp képp koo xamante ne nii eh, am nga cofeel eh, ci Cheikh Tidiane Diouf wala bokk képp koo xamante ne nii am nga yég yëg wala bokk am nga gis-gis ci ki li nga xamante ne ni vraiment mooy kii di Cheikh Tidiane Diouf bés boobu euh, ñu ngi la euh, ñaan pour nga mën a ñëw fekkee ko euh, ci loolu rek ma waat wax tuuti rek ci sa Safen donc mbokki Safen mbokki Kursaafi mi kañi ñépp boɗna ngaran tiig nana kañiskinɗa faɗɗi ken ƴaar ɓiti yaka komaki a ah, ɓo rak rak besif ina nga hayno wi o samedi le 13 mai ɓo bi ɓeeɗuk ɓo Kursaafi jen way tamit ɓo ɓe ɓeeɗuk addunaani jen ndax monsieur le maire Cheikh Tidiane Diouf yif ina nga hawine wi akubu kurzavi yif ina nga hawine wi bo nanik ndeng furzavi la Cheikh Tidiane raki kolore modo ni modo gada bo nani nef kurzavi la Cheikh Tidiane raki har bannada har bannaf ina nga hayne we ken hayda wisse wotin kurzavi potaha uh, eh, findi amman na tufko haadi ndeng kurzavi na inti modi cif ina nga na rawi ci habinga kurzavi chatta hapo bo amzuko hajjen ko baki yar yakak Eh, na kurel laaƴ cifiɗa nga hene hunga pour bo wona sehdi diaf juufiyam fok ɓo corkiɗɗe woni ko besifiɗa nga hene wi ɓo ambida woni ko sargal kono sargaling sehdi diane juufiyam ɓoɓi ɓeeɗo coursavi nga jen ken tasɗi ɓo waɗi ken coursavi jen hayat allah samedi le 13 bo nanga ngawɗuɗa vraiment fo hay terrain jankalar bo toglu eh, samedi ni he samedi ni ɓoni ko woti o dowɗo le 13 inchallah ɓo ɓiɓeɗu ñëpp ɓo ɓiɓeɗu coursavi jen Eh, ina tax ɓoɓe ɓo watta sargal yifina hanga hen ay sehti diane diouf wiide zenti rakɗi ɓo ya rakɗinade ay harmban moɗi gankour savi ɓopti jen jamma no salam ɗisno foɗɗe da iƴene da fine ɓoye mbo jamma ɓoye finanga hayne temin aɓo social ɓoye finanga hayne wi a haɓ jaflante ana bo ngan kehƴitte ken haydi kerhe nga ken haydi yege nga yahay nde singi mbaɗna yaahi ñahmbi eɗo inda yaha singi hayda yege bo na bo nu ɓe concours avine kat ahay corkidu zenda he limle jog di tas tax bo bi ɓeeɗu ñëpp kon mbokk yi ci tënk alors kii nga xamante ne mooy Cheikh Tidiane Diouf ñu fas yéene ko sargal naka samdi bii di ñëw la 13 incha allah ca 13 ca terrain jànkalaat bu toglu ñu ngi ci woo ñëpp góor jigéen mag ndaw tund saafen gépp commune Diass gépp rawatina Sénégal wërngal këpp ñu ngi ciy woo ñëpp kon su bés ba incha allah bu ko kenn tardé ñëpp dinañu ñëw ndax jot nañu képp koo xamante ne ni vraiment euh, kilifa nga ci wàllu politique kilifa nga ci wàllu aada aada ci wàllu diine l'islam ndax ñoom ñëpp ku ci nekk seq nag monsieur le maire wóllëre boo xamante ne tey jii nii ak wooteem du doon woote tuut euh, lu woote bu tuuti ba tax na ñëpp ngi pare pour ñëw ci bés boobu incha allah ñu ngi leen di ñaan yéen journalistes yi tamit euh, bu leen fa kenn jiitu muy samedi incha allah le 13 mai ca terrain Jankalaar su ko defee nag mbokk yi mbokki internet yi mbokki saafeen ñu ngi woo ñëpp di invité waat ñëpp encore bu kenn des bu ko kenn wute incha allah un grand rendez-vous si vous me permettez un petit mot en français un très grand rendez-vous à ne pas manquer surtout donc euh, euh comme on dit euh, euh, l'avenir parti donc euh, CTD et, et réveil le mouvement réveil donc tous donc un grand sargal Euh, donc pour le euh, pour le maire Cheikh Tidiane Diouf ce sera le 13 mai inchallah euh, donc au terrain Diankalar de Toglou un rendez-vous à ne pas manquer nous invitons et nous appelons tout un chacun alors hommes femmes garçons filles tout le monde vous êtes conviés à cette belle cérémonie vraiment ce sera quand même une cérémonie à ne pas oublier surtout à ne pas rater parce que vraiment euh, connaissant donc la personne de Cheikh Tidiane Diouf c'est un homme de valeur un homme de dignité un homme vraiment euh, qui, est, qui est ambitieux, un homme qui a eu au moins, à, à comme on dit, à, à, à, faire ses preuves au niveau donc, de, du bon de Safi, et même euh, dans le Sénégal, euh, donc à part entière. Donc vraiment, nous saluons vraiment euh, donc, euh, tout le monde. Euh, nous remercions également euh, tout le monde, la presse nationale, la presse locale, ici présente parmi nous aujourd'hui, justement pour essayer au moins de lancer une pipe à l'endroit donc de toute la population et toute la communauté safène pour le grand rendez-vous à ne pas manquer le 13 mai, Inch'Allah, au terrain Djankalar de Toglou. Merci,